dalli na jàmm ci tas info abonel ngir dara bañ a di la raw dalee nag jàmm xabaar bu doyo doy waram muy dal ci ki xam ne moo di Cheikh Bara Ndiaye moom moom mi nga xam ne moo di borom def gis ñu gis ko lu bëri bëri ci ay plateau yoo xam ne daan na ci wër di défendre kii di Ousmane Sonko njiital Pastef moom moomee nag tey jii gannaaw bi nga xam ne yeewu na ay 4 heures du matin jëm kaw ci leen gis ni li nga xam ne moo di ab otom daa am ñaar nit ñoo xam ne yor nañ moto ñoo xam ne dañ faa ñëw daal di koy taal almet dugg ci mbooy gi ba léegi nii kenn mënagu leen a identifier loolu nekkaat loo xam te ne lu doy doy wala ci sécurité bi nga xam ne ne moo war a ne moo nekk ci réew mi moom moomee di Cheikh Bara nag defu ko ci benn réaction ndaxte ba jën yàlla tey moom ma ngi ko di wuyu téléphone ci wet gi waaye daal ba léegi nii waxagul benn yoon yéey yàpp ci li nga xam ne moo di mbir mu mel noonu waaye daal nekk na mbir moo xam te ni mu doy doy waar la te it bu mu seetaane muy gën di wéy dina mujj indi yeneen ci ay jiyee ndaxte ci fàttali jafan jafane rek ak ki nga xam ne moo di euh, Serigne mbay Thiam moom moomee taaloon nan ba sama ci buntu këram euh, ak ñeneen ñoo xam te ne jamono ji euh, bu lii dakkul mën na indil ak fitna mu di ak taalanteeg ya ca aju nekkaat leneen loo xam te ne lu doy doy war la ci li nga xam ne moo di suñ stabilité réew ngir yu mel noonu bu deewee lii di stabilité réew mi dina gën di na sax loolee nag ñu koy ñaax ñi nga xam ne ñoo di woy ñii di def yenn ñaawte fi ñu moytu ko bu baax a baax ngir balaa yeneen ci ay jéye di am li ci li nga xam ne moo di ci réew mi ndax réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk.